dañ ko daal di taaloon ci yi ndax enquête bi ubbi nañ ko wala. Euh, ba tey donc euh, mais amul solo parce que nee naa oto matériel la ñun ñoo ko mën a liggéey oto mënuñu am ñoo ko mën a am donc loolu du problème koi waaw avancé wul nag mais amul benn solo. Mhm. ba tey xamoo leen kan moo ko def. non mën a ko xam. mënuñu ko xam aussi et je pense que sa va être très compliqué pour xam ko waaw. décision bi nga xamante ne si président ko daal di renoncer si troisième mandat wam ban jàngat nga décision bi dañ koy saluer parce que tamit euh, <laughs> luy yoon rek la def mooy yi nga xamante ne xëy na bu bu demee woon neneen doon nañ gisaat leneen te dëkk bi xëy na doon na gën a yëngu comme ni mu amee nii rek jàmm gën daal ñu ngi doon wax jàmm gën ah. waaw li ñu doon wax ni rek euh, jaam a gën troisième mandat tey def na ko donc euh, bu amoon coow li am coow li bëri xeex bi bëri jàmm rek daal jàmm moo gën te comme def na ko te sénégalais yi li leen bëggoon ñëpp li leen doon xaar constitution bi li yey yoon daal def yoon la def rek donc on salue cette décision. est-ce mën nañ xam lan moo la motiver à ce nga dugg ci langue politique bi. <laughs> waaw politique moom. Euh, xam nga chaque fois dama koy wax xëy na nit ñi dañoo foog ne euh, euh, dañoo benn riir la rek bu ñëw kiwin dugg ci man chaque fois dama koy wax damay ne man bi may def samay étude je suis juriste de formation mais dama def master en sciences politiques ak yooyu donc man fi ma dugg xam naa ko dama faa bokk xëy na nag yàlla mooy jox ku nekk destin nit ñi xamee ma ci musique loolu sama destin la mënuma ci won échapper mais affaire politique dama ci yàgg du politique kese politique la sax boo bëggee boo nekkee ci foo nekk li koy doxal nga ne da ci ciy bokk tey bi ma nekkee fac droit j'étais délégué d'amicale te xam nañ ne délégué yi ñoom ñooy xeexal xam nga droit étudiant yeeg yëpp donc yooyu yàgg naa ci muy bu may nekk lycée école primaire tout chaque fois damay diriger ay affaires muy ci Fosco muy ci affaire lu ne dama ci yëngu xëy na tey bu ma ñëwee ba bokk ba nag dugg ci langue politique sénégalaise mën na leen bett xëy na ñi ko xamut mais ñi ma xam dëgg dinañ xam ne Queen dafa yàgg xam nga euh, bëgg ay affaire waaw kay c'est ça. ñu bëri di wax ne Queen dafa bàyyi woon woy ñëwaat est-ce que nekkul loolu moo tax bëgg indiwaat buzz nit ñi gën koo ràññewaat moo tax mu dugg ci langue politique bi ñu bëri dañuy wax loolu lan ngay tontu si loolu. <laughs> mais buzz soxlawuñ ko man Queen foog naa buzz naa lu ne li ma war a buzz yëpp buzz naa ko. Sénégal Queen rek mooy buzz génn taxaw dox rek buzz la donc nit bu nekkee ci fulaam nekk ci yoon pour man da ngeen ñu ci war a encourager parce que lii nii tey dafa rafet. nekk ci langue politique bi ba ma ci duggee yàggul coow li bëri fu ma toll ñu ne kiwin lii kiwin laa kiwin laa lu ne dund naa ko ci nag ci sama carrière gu gàtt muy ci mettit muy ci bànneex waaye tey bànneex yi mën nañ koo lister parce que tey lii dafa rafet ñu toog ba def une nouvelle alliance président leader yëpp ñëw bokk ci ah des présidents de mouvement euh, et d'organisation de la société civile ñëpp ñëw bokk ci te yàlla ñu tabu ma def ma njiit li ma nekk présidente dama ciy kontaan loolu dafa rafet te xëy na ci suñu carrière gu gàtt la mais li ci kanam rawuli bët parce que xëy na bu ñu commencé woon am nu commencé nit ñi duñ duñu am ci ñun confiance mais dañu commencé ci dëgg dañu commencé ci xeexal réew mi dañu commencé ci xeexal sénégale yi dañu commencé di casse injustice man tey jii nii dama koy wax à chaque fois damay ne man politique xaaruma ci dara ndax su ma ko ci doon xaar dem dund lu neex yomb na ma ndax euh, yàlla mi ngi te ci yoon boobu laa nekkoon it ndax ku xam artiste xam bëgg nañu la belle vie bëgg nañu les voyages bëgg nañu dem xam nga découvrir le monde di noos ak yooyu mais tey su ma demee ba renoncer à tout ça ne damay ñëw xeexal sama réew kon war ngeen xam ne leur est grave. ci mbirum politique euh, moom mooy moo jiite alliance bi. waaw alors pourquoi pas mu jël ay responsabilités lu ne mën na amit lu ne mën na am. parce que sànq dafa am benn question bi ma dégg ñuy wax ci affaire jigéen te damay xamal ne jigéen mooy yaay yërmande ci ñun jigéen la ëppee nda bi mu naan lu tax ngeen jël alliance bi jiital jigéen dama ree bëggoon naa ci tontu waaye xëy na fii laa ko mën a waxee jigéen mooy yaay xolu yaay ci doom yaay du lekk bàyyi doom te jigéen fu mu bu jiitoo rek yërmande baa fay jiite te Sénégal dañu soxla ko am yërmande. te foog naa ne problème genre yi dépassé nañ ko nag ndax àdduna bi léegi nit ñi dépassé nañu foofu jigéen ay jiite wala góor loolu amul solo compétence yërmande xam le problème des Sénégalais xam fi góom bi ne xam fi metti nga di ko faj. loolu rek mooy problème bi te loolu la ñu manqué te incha allah ñun nous sommes une jeune génération de jeunes conscients bi nga xamante ne dañu ñëw taxaw. temm pour xeexal sénégalais yi lépp luy metti dinañ ko listé lépp luy metti dinañ ci ut ay jàng ay saafara. lan nga gisee kër Ousmane Sonko nga xamante ne ñu ngi ko barricadé presque depuis. du dëgg boobu rek bokk na ci li xeex du dëgg yoon. moom cérémonie d'investiture am ñu waa Pastef foo ko amal le 15 ñu génn ne euh, gouverneur dafa daal interdire wante li nga xamante si moo di kàddu yi Birame Souleye yëkkati woon jëmale ko ci ki nga xamante si moo di président de la yow yow naka nga ko jàngatee. Birame Souleye maa ngi koy maa ngi koy eh, doole di ko souteniraat encore parce que déjà c'est un ami un grand frère baax loolu nag ci man wax dëgg fa yàlla saa bu ma amee ay kii daf may woo di ma conseiller donc euh, li ñuy wax rek une faute avouée et à moitié pardonnée même ci justice sax dañ koy wax wax na jéggalu na nañ ko jéggal te yàlla rek tax ndax tamit wax tax yombul man mii sax mën naa wax juum keneen wax wax leneen keneen wax wax leneen donc te contexte bi rek moo ko laaj nañ teg yëpp ci contexte bi rek contexte defante beeg gat sa gat sa geeg wax ma def tontu ma taxaw loolu rek la mais bu ñu ko tegee ci contexte rek xam ne mais bu buñ ko teggee foofu rek nit ku baax la nitu jaam la Birame Souleye sax amul benn problème du sax wax mm-hmm. dëgg fa yàlla am na ñuy laajte sànq ba tey ci direct bi kañ la kiwin di nekk madame ñu ne ma ne ñu ne nañ la ko yeggee waaw man na xam nga loolu <laughs> nit ñi ñooy def man sama bopp bi franchement dam non dama koy wax ah le mariage c'est pas une fin en soi ñu ci bëri ah ay kañ ngay nekk madame kañ gay kii du loolu mooy affaire bi quoi il faut être bien xam nga ak sa conscience moi bien quoi wax dëgg fa yàlla ay affaire u mariage yooyu bu jotee dina ñëw uti wuñ ko forcé wuñ ko dawuñu kii kii wuñu ci aw ma ci benn kii yàllaa ngi may sutage aw ma pression en fait te ni may dund nii mi ngi may permettre maa ngi am temps je ci politique bi ma nekk nii maa ngi ciy focus bu baax a baax a baax di mën a chaque jour may xalaat chaque guddi may liggéey ndax it musique bi ñuy wax bàyyi ma ko dama ko boole. maa ngi nii am na ay affaire yu ma war a def ci weekend bi côté musique donc xam nga loolu yombul ku boore ñaar yooyu rek yombul donc bu jëkkër ñëwee xam naa day gën a diisit waaye bu ñu ko yàlla indilee dinañ ko nangu mais du du du benn affaire bi nga xam dama ci focus nii rek ne damay sëy sëy sëy non non non non bokkuma ci genre jigéen yooyu nga xam ne sëy sëy sëy nit ki dangay nekk ba pare door a tal leneen quoi. waaw man dama bëgg nekk queen bis avant ñu naan madame diw ñu ne queen bis ba pare waaw. cérémonie d'investiture bi waa wax nañ ci sànq. ah d' accord ah ok waa loolu laa wax rek dama ne bu ñu bëggee am des élections euh, transparentes et na ñu bàyyi. lépp lu jëm ci affaire élection ñu bàyyi ku ci ne def ni nga war a defee le le soir du 25 février ku mën sa morom duma loolu rek laa wax les sénégalais qui doivent choisir te dinañ choisir donc jarul ñuy yàq fii tëj fii tere fii bàyyi fii quoi nañu bàyyi ñëpp rek ku ci nekk doxal quoi loolu mooy yoon tere beeg yooyu yëpp man pour man c'est pas c'est pas normal c'est pas du tout normal